pourquoi je dis est-ce que vous êtes encore majoritaire à l'Assemblée nationale pourquoi je dis c'est mal députés de Benno Bokk Yaakaar que vous êtes encore majoritaire à l'Assemblée nationale. déjà la majorité était voilà juste. voilà une majorité est toujours une majorité. quand quand on perd le pouvoir xam nga ce que ça implique certains vont voilà est-ce que vous avez fait l'état des lieux xool ba xam ñi fidaloon ñi ngi ñi ci ba parce que aussi euh, nguur souvent c'est comme ça ko def yéen déjà grignoter ci opposition bi ay ay députés. Euh, vous savez il y a une particularité euh, à tey jii am nañu group bu bu mel ni wàllu mhm. mooy le PDS et qui a voté Ousmane Sonko qui a voté la coalition Diomaye président lors de la présidentielle mmh. mais ce qu'il faut comprendre est que à l'Assemblée nationale lors de, de, de vote du budget ou d'autres lois nous avons toujours dépassé le nombre de députés du groupe Benno Bokk Yaakaar. vous parce que tout simplement voilà des députés une opposition parlementaire républicaine les députés de wàllu avec le président de groupe Lamine Thiam. Mhm. dañu mës a voté loo xam ne njëriñu askan la. ak taxawu Sénégal aussi. Euh, taxawu taxawu taxawu xëy na bi ñu. Euh, bi ñu ah, amee problème ak yeewi la ok ok ok. voilà mais coalition bi nga xam ne groupe bi nga xam ne dafa mës a am constance. Mhm, mooy wàllu mooy wàllu. et vous pensez pouvoir encore compter sur pour les pour liy ñëw. non ñoom seen groupe lañu am ñoom am suñu groupe. bu ngeen amee convergence d'idées de vue. mën ngeen mën ngeen ñu ñëpp li ñu intéressé mooy njëriñu askanu Sénégal. Mhm. tey bu waa euh, bu waa Yewwi tey le pouvoir je veux dire indi woon tey projet de loi boo xam ne ñu gis ne lii pour askanu Sénégal la gisuma lu tere. député Benno voté ko. nous n'allons pas faire comme ñoom. Mhm. xam nga ñoom mosuñu voté budget budget budget budget budget budget Sénégal. Mhm. waa Yewwi mosuñu voté budget Sénégal tam ñun dañu wax naan ministre mënu toog ma ne man aji mbeex gaan Kaolack gëm a dëkk dama am problème assainissement am naa problème mu tali ministre considéré bi ne ma aji mbeex gaan yow kon Kaolack programme bii la am si assainissement ma ñëw du ma budget bi ñoom mhm. ils l'ont fait ça veut dire que kon askan wi bu bloqué woon askan wi moo ciy lor mais mhm. ñoom ils ont tout fait pour bloquer le budget du Sénégal. yéen da ngeen def mais ñun wax dëgg yàlla euh, bu ñu indee budget Sénégal comme li ma la wax kese nous sommes une opposition républicaine. vous essayez de les de les rassurer wala. est-ce que du parce que am na ñu ne porte-parole li mu bëgg a wax mooy bu ngeen naree bloqué seen ay liggéey ils vont dissoudre l'assemblée même si amuñ ci droit ci moins de deux ans yi mais on ne jamais par quel ah, mécanisme ils peuvent passer. dama lay xamal leen assemblée <coughs> nationale. Mhm. kenn mënu ci dara neewoo ma léegi neewoo ma léegi ignoré nañu décret bi bi may gars ñu am seen passeport ku def loolu war na mën a def leneen waaw loolu décret Macky Sall la assemblée dissolution ça c'est constitutionnel une loi constitutionnelle ah, amuñu sañ-sañu laal ko mhm. autant la motion de censure mu nekk ci constitution article 86 mhm. autant ñun député lañ ko jagleel mhm. autant la dissolution lañ jagleel président de la république mais il faut mu am deux ans te franchement ça nous kii ñu daal yu ñu nu ko waxatee yëngaluñu quoi. Mhm. franchement ñu dissoudre assemblée nationale ñu bañ ko dissoudre ce qui est important mooy on est encore là. en cas de dissolution vous risquez de faire et nous allons travailler pour le Sénégal votre, votre majorité parce que yeneen élection bu amee. souvent mais mais euh, mais non non pouvoir di am a falu. le le peuple est mature le peuple a compris que maintenant il faut donner l'exécutif joxal exécutif. Mhm. ñii joxal. li nga xam ne mooy assemblée nationale ñeneen moo am rôle de contrôle parlementaire parce que ce qui s'est passé en 2022 mhm. peut se reproduire bu ñu demee élection élection législative nous Benno Bokk Yaakaar nous pouvons bien évidemment contrôler l'Assemblée nationale parce que déjà taux bi ñu am nii ci mhm. élection yi buñ ko xeeb gaño nañ ñu mais nag euh, bu ñu xeeb ne am nañ trente cinq pour cent mhm. te loolu bu ñu gënee liggéey gën a wax askan wi dina euh, dinañu mën a jël li nga xam ne mooy majorité bi nga xam ne mooy assemblée.